ginnaaw bu ma leen nuyoo di leen jaajëfal ci àjjuma bu sell bi fas yéene indi leen di gën a fas ci bopp xibaar yi laataa loolu ko comme ni ma koy defee toujours damay nuyu sama naataango yi ma toogal Mbaye. Ndeye Mbacke maa ngi lay nuyoo di kontaan ci yow bu baax a baax di la fay wante ñu ngi nuyoo suñu mbokku internet yi nga xam ne ñoom tamit saa su ne dañuy topp fii ci Leewtoo TV ngir ñu jukki leen li gën a fës ci yeneen kaay yi bind ci wàllu làmb. Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye maa ngi lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom pour ñëw indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi. vendredi 5 5 février 2021 pour battre de Guiers 2 recrute mu mën a gagné ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Eumeu seen dafa wut borom xam-xam ba nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu sport de combat nekkoon fi champion du monde nekkoon fi euh, borom xam-xam ba nga xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllu sport de combat kooku mooy Mouhamadou Alé Ndiaye. ndim ka nga xam ne mbër yu bëri tamit dañ koy sollicité ngir mu leen di jàppale ci seen ay combat mu mel ni moom la Lac de Guiers 2 jël ngir jàkkaarloo ak Eumeu Sène mu mel ni kon Lac de mu ngi ci préparation yu am doole Assane dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la comme euh, Lac de dafa war a jàkkaarloog ak euh, Eumeu Sène Eumeu euh, c'est la troisième fois ñu war a jàkkaarloo première fois bi la ñu niiloon deuxième fois bi Eumeu Sène daane ko troisième fois bi nag Lac de Guiers dina def tout ba Eumeu Sène du ko daane looloo tax nag mu recruter du Aly Ndiaye mi nga xam ne nii yaa xam-xamam dafa màcc ci wàllum sport de combat nekkoon également ni nga ko waxee champion du monde représenté woon Sénégal c'est Allemagne da koy recruter wàllum bagaar wàllum technique ci fànn yëpp yoo xam ne nii dina ko permettre le jour J contre Eumeu Sène mu am première victoire am ci doomu Pikine bii nii Ndeye Mbacké. te kan dem mooy l'ouverture immédiate de l'arène euh, Matar Ba le ministre des sports exclu li nga xam nii mooy année blanche. moom nee lii di année blanche àndu ci tey àndu ci ëllëg moo ko waa ministère ak moo ko waa ministère am yëpp kii di jëwriñ ji nga xamante ne bii moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ci biir réew mi. Matar Ba ni nga ko waxee noonu la Babacar Matar Ba exclu une saison blanche noonu la ko suñu làmb waxee. waxee daf ci jokkoog nag koo xam ne ni jege na Matar Ba kooku moom moo ko révélé wax jooju après bi mataar Ba waxee loolu euh, suñu làmb woo na également téléphone Birane Sène mi nga xam ne nii moom moo jiite CNG bi li fa Birane Sène wax moom mooy que ne xel xalaatu sax saison blanche yi am te lii yàggatul dara. saison bi dina ubbi comme la nouvelle boobu dina neex trop amateurs yi ndax ñi ngi xaar nag saison bi ubbi Babacar. loolu dina gën a neex Maysa sa vice président vice président de la lutte avec frappe mu ne làmb ji dina allah. moom mi ñu toftal ci euh, Bira Sène moom moom Maysa Ndiaye di vice président chargé de chargé de lutte euh, avec frappe moom nee na du yàgg dara ñu ubbi li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji ndax li ko waral mooy amateurs yi namm nañ làmb mbër yi namm nañ làmb wante tamit. axlu làmb ci boppam namm nañu stade arène bi. dëgg la Babacar ni ko Bira Sène waxee euh, Maysa Ndiaye également di premier vice président chargé de la lutte avec frappe. ci CNG bi moom it noonu la ko waxee nee na nous allons vers une ouverture très prochaine de la saison moom nee na du yàggatul dara saison bi waxtaan bu yaatu nag la ci seqal ak suñu làmb euh, abordé na question yu bëri nee na également ñoom euh, nous ne craignons pas une saison nee na xalaatuñ sax di def saison blanche loolu moom bokkul si seen programme nee na wax na également pour premier combat bi bu promoteur yi parewul CNG bi moom pare na pour tëgg première journée de la saison la jaaxaloon nit ñi nag yaakaar naa ne war nañ cee mën a am xel bu dal Matar Ba moo noppi woon moom jaaxal ñëpp kooku wax na kon nañuy xaarandi rek lu yàgg dara saison ubbi ñëpp delluwaat seen activité gala en Gambie ki nga xam ne ni mooy Fallou Ndiaye mise en yi nga xam te ne mooy 1 million 250 féete ba nag mu nga koy waxee euh, niñ koy waxee saa su ne mel ni làmb ji dafa dafa dafa takk ay bagage am dëgmal Gambia Fallou Ndiaye di promoteur ba nga xam ne day yëngu wàllu làmb di allah bu ci yàlla àndee le 27 février ak le 28 février foofu ca Gambia teg ci million mille mu mel ni kon mbër yi mën nañoo préparer bu baax a baax te xam ne Gambie dana am ay làmb. dëgg la Babacar ni nga waxee noonu la Fallou Ndiaye ñëpp xamoon ko ci promoteur bu mag la fii ci Sénégal comme saison bi démarré gu nag moom mu démarré saison wam foofu ca Gambie. looloo tax le 27 ak le 28 février mu war a tëgg benn gala de lutte boo xam ne nii bu mag lay doon def ci benn mise 1 million 250 mille mooy ci benn village bu nekk Gambie village bi mi ngi tudd Fass Ndiaye Thioy village bi noonu la tudd Fallou Ndiaye nag liñ ci fas yéene ci gala boobu mooy ci sargal ci rëg ko ci lutte simple ñu xamoon ko ci MMA bi également mu jógee bu rëy contre Pierre Alain Galani jour boobu Fallou bëgg na ko fa sargal sargal gu nga ndee nga ndee nga ñu fas yéene cee bu baax a baax tamit allah ma ngay noonu yàlla nañ ci yegg ak jàmm vers Dastou Kanté. Euh, journal suñu làmb ñëw xamale ñu ak soxna si nga xamante ni bii mooy Astou mhm. di benn jigéen bi bokk ci CRG bu Kaolack. Mhm. suñu làmb ñëw na xamal ñu kan mooy Astou Kanté. dëgg la Babacar Astou moom mooy ki bees wala jigéen kott bi nekk ci CRG bu Kaolack. Euh, suñu laa mu ñëw ne à la découverte de Astou Kanté maanaam xamale ñu kan mooy Astou Kanté moom nag li mu wax mooy Astou Kanté mi ngi juddoo ci quartier bi naan Ndar gu ndaw foofu la ganee àdduna nee na également moom mooy première femme ci Kaolack boo xam ne nii day tëgg ay combat Astou nag ñëw na euh, ci essence bu yaatu ak suñu làmb wax na fa jaar-jaaram ci làmb wax na fa ni mu def bu bëgg làmb ak ni mu ko falee ni mu ko ni mu ko euh, ni mu ko fekkee bi koy bi ñu koy fal fi mu ko fekkee nee na nag recevoir nañ ko ci consultation yi mais waaye musul yaakaar ne dina bokk ci bureau bi mba na maanaam daal euh, mbetteel la ci am. mu mel ni euh, ñaareel loxo mooy takk tubay wante ñaareel loxo mooy takk sër. Mm-hmm. jigéen yàgg naa doon jàmbaar kontaane nañ ko bu baax moom Astou Kanté fan jëm nag mooy pour pour une meilleure préparation la la de guerre les grands secrets de Mamadou Ali Ndiaye. gannaaw ba ko Lac de da 2 jëlee ngir mu euh, euh, tàggat ko ci kombaam digganteem ak Eumeu Sène journal bi ñëw na ci waxtaan bu yaatu ak sampion bi di ma Mamadou Aly Ndiaye lan mooy ay secret lan moo tax mbër yi di ko taamul di ko solliciter lu bëri mu leen di jàppale ci seen ay combat dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la li tax euh, mbër yi di ko choisir pour mu jàppale leen moo naam xam-xamam moo tax ndax nekk na champion du monde comme ni nga ko waxee sànq am na xam-xam également ci wàllu woowu looloo tax mbër yu bëri di ko choisir euh, Lac de Guiers ne euh, nekkul première mbër bu ko sollicité Balla Gaye mos na mos na ko sollicité pour mu liggéey moom bi muy dajeeg Modou Lo loolu sa si en 2019 la woon bi muy dajeeg Modou Lo Balla Gaye na ko waaye ni muy liggéeyee ak Lac de Guiers la la journal bi indi nee na télétravail lay liggéey ak moom ndax Mamadou Ali Ndiaye mi mi ngi Paris mais day def ay ay vidéo lay lay lay enregistré envoyé ko coach su Lac de yi ñu suivre ko. mën a def plan du jour boo xam ne nii Lac de Guiers moom lay suivre chaque chaque jour. ña nam ña nam na rek mooy les amateurs nostalgiques ña nam Ibou Ngare ak ne nii mooy Ibou Ndiaye ñoo ko na yàgg na kat ab jël ko yegg gars yi loolu lañ na mu de am bu mel ni amateurs yi ak mbër yi du amateurs yi kese mbër yi ak ñi nga xamante ne bii ñépp ñoo bokk ci làmb uh-huh. nam nañu dioo de choc boobu dëgg la Babacar moom pa Ibou Ngare yi ak pa Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi di ñaar ña nga xam ne uh-huh. dañoo bokk ci làmb day ambianceur xam nga làmb boo ko waxee daf am sàmm uh-huh. ambiance daf ci bokk wax nga dëgg Babacar ñooñu ay ay marque lan ci biir làmb Ipo Ngari ak Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ñooñu bun ma boo boo demee fekkoo leen ci làmb di nga xam ne làmb ji am na lu fa manqué journal bi nag ñëw na ci ñoom nee na amateurs yi les amateur nostalgiques de Ibou Ndiaye et et ñoo ko bàyyi nee nañ daal yàkkamti nan euh, seen acca acca yi ak yàgg na yàgg nag yàkkamti nan ko bu baax a baax a baax loolu ñëpp ko namm ka kontaan nag mooy cat cat seklat ak New York mu mel ni Thiat Seck ma nga ma nga ma nga ma nga États-Unis d'Amérique di ko yëngal mhm. ma nga yëngal la New York li ko waral mooy gëj nañ koo gis Sénégal waaye ma ngay wane boppam foofu ci États-Unis di di waaj dëgg la Babacar Thiat bu booy baa booy Bambara ñu xam ko ci écurie booy Bambara mu nekkoon fa di tàggatu mu war a am combat nag moo Modou jaa moo Modou Dia bu Yoff ñoom ñoo war a daje. bi mu euh, ginnaaw moom nag dernier combat mi ngi daane woon armée mais journal bi nee na mi ngi États-Unis New York plus précisément di éclaté wu nee na nag li ko fa gën a jaaxal mooy nees bi fa nekk nee na New York day nees nees bu métti caat daal loolu jaaxal na ko bu baax a baax te c'est normal boo jógee Sénégal ci tàngoor bi jëm États-Unis ci nees bi mm-hmm. leen normal que nees bi jaaxal la. <laughs> non c'est bien normal du du yomb. MMA mm-hmm. <laughs> lañ jëm ñu doon xaar combat bi nga xamante ne mooy dox ci diggante rek rek kan la am. suñu làmb xëy na euh, MMA Almeida prochain adversaire de Reug Reug en marche incha allah. Mhm. mi ngi noonu gannaaw ba mu daanee Alain ni mu mel nii Reug Reug ki mu war a jàmmaarloo waatal mooy Marcus Almeida loolu nag mi ngi am ci weeru mars wi ñu dëgmal Reug Reug mi ngi koy waajal bu baax a baax te xam ne li koy xaar tamit incha allah te nee ndam rek la ciy séntu. dëgg la Babacar ginnaaw bi mu daanee Sofiane Boukisi loolu mi ngi amoon ci décembre 2019. ak bi mu ga daanee bi mu gañee euh, Pierre Alain Ngalani di Cameroun boobu nekkoon seen combat bi doon amee ca Singapour loolu le 22 janvier bi passé la Reug Reug nag mi ngi jëm ci troisième combat am ci MMA bi te ki mu fa war a dajal mooy Marquis Buchecha Almeida kooku nag benn brésilien la seen combat bi ñu ngi war a am ci mois de mars bii di ñëw maanaam matatul weer di ci des. waaw comme turam bi ñaan la ñaan Marquis Bouchecha Almeida du ma ko wax du ma ko na xar daanu ci kawam mooy góor a sokk lutteur ba nga nekk ca Parcelles Assainies a perdu son grand frère. xanaa ñu koy jaale bu baax rek di ñaan magam jooju génn àdduna suñu borom yërëm ko te jéggal ko mu mel ni góor a soog mm. euh, dafa bokk ci làmb mi ngi ci tiis ak ndax ndax magam moo ko dëddu ñu denc ko démb ca Touba Mbacke dëkk bu sell boobu le dëgg la naxar euh, muy xibaar bu naxar suñu làmb xëy tàggee ñu magam magam mi ngi tuddoon Baara Bey amoon ci 65 ans maanaam juróom benn fukki at ak ak juróom su ma juumul Babacar noonu la. 65 ans gaañu na démb seen kii après foofu entraînement bi mu ngi amoon Touba. ci même jour bi lañ ko defal lépp ñu koy jaala rek di ko jaale a Sock di ko jaale également Saara Saara di rakku Gora Sock. ma koy jaale bu baax a baax a baax. ci suñu kàddu euh, Leewtoo production di jaale Gora Sock bu baax a baax. exactement. yéen mm-hmm. suñu dinañ ko dinañ fa dem su su tànki oyofee. incha allah Baba Diaw un pro un mu mel ni baaba Thiaw promoteur bu bees la. bu mhm. ne cabax ci biir làmb ji. dëgg la fas yéene wane boppam nag li ko waral mooy nee na daf fas yéene fëgg. Mhm. buntu espoir yi. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la ba baaba Diaw moom mooy patron Cham production moom nag daaw la dugg ci làmb yàggu ci maanaam bees la ci waaye journal suñu làmb nee na Baba Diaw mi c'est un promoteur d'avenir moom nag ñu fàttali ko. moom moo tëgg combat bi war a dox ci diggante Coins ak double loolu loolay wane ne baaba jaw mii dikkul pour fort. Mm-hmm. am na am na ambition ci eh, wàll yu muy def. te bëgg na ci sori moo tax combat bi combat bu am solo la mu taxawal ko. te ñu war ko amal si saison bi incha allah. loolu la Olof Ndiaye daan euh, mbéñ mu njëkk day dal fa mu dóor baax na. baax na mhm, macha allah. tey si journal suñu làmb Maraw Seras l'ange gardien Ama Baldé mooy maanaam dañ ko duppee ki nga mooy protecteur ki nga xam bëgg a détrôner roi des arènes bi. waaw maalaw Seras moom mi nga xamante ne bii kenn la ci Ama mm. ñëw na euh, ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, fi Ama toll ci waajtaayu combat bi ak li nga xamante ne bii li muy liggéey ak li mu li mu nar li mu nar a jëflante ak Modou Xarañ Lo moom mi xamante ni moom mooy adversaire am bi nekk di kanam. Mm-hmm. dëgg la Babacar euh, maalaw Seras lance gardien de amaa Balde noonu la ko journal suñu la mu waxee nee na maalaw Seras daal moom mooy ange Ama Balde nee na ñoom ñaar. Euh, dañu ànd fu ñu jëm ñooy ànd moom mooy euh, homme de confiance am moom mooy bras droit am. la preuve ba combat Ama Baldé ak Modou Lo taxawoo ba léegi. Ama Baldé dafa dem ca Malika kër Malaw Seras toog fa pour entraîner fa loolu wane rek ñoom ñaar ay xarit lan ay doomu ndey lan fu jëm ñoom ñooy ànd. ba léegi dañu dem ci journal record lutte Pikine Kër Massar Mbao Ama Baldé en guerre avec la Covid ce samedi incha allah. Mm-hmm. mu mel ni euh, doomu doomu suñu papa Fa Balay Pa Falay Balde bi nga xamante ne bii moo di Ama Baldé sëll bu ndaw dafa jóg ngir xeex ak jàngoro ju bon ji nga xam ne moo lëmbee àdduna. dëgg la moo lëmbe Sénégal di coronavirus mu fas yéene cee def lu am solo nag Assane. dëgg la Ama mbay Babacar Ama Baldé en guerre contre la Covid 19 ce samedi maanaam euh, record noonu la ko waxee Ama Baldé euh, ni ki suba incha allah day def benn tournoi ci banlieue bi dina dem Pikine dina dem Mbaaw dina dem Kër Massar li mu fay wuti nag mooy day séddale askan wa fa nekk ay matériel li ki demee ci ay masque ay antiseptique mm. pour jàppale leen ñu mën a xeex Covid bi personnel am la génne pour euh, financer aide boobu muy joxe ñu koy saluer bu baax waaye également nar na dem Casamance nee na di 15 au 27 février campagne bi nii dina ko def Casamance. ñu ñuy saluer geste bi rek parce que geste bu rafet la ndax mbas mii di coronavirus ñëpp boo war a xeex mu jóge fi ndax ñu mën a delluwaat suñuy activité mm-hmm. ndax mën nañu làmb. mën nañu làmb la mu def geste bu rafet la toogul rek croiser les bras naan dañuy xaar Covid bi jóge fi xam mooy Covid bi fi. Mm-hmm. record ba léegi 5 novembre 2020 5 février 2021 ñu ne 3 mois pour Bira Sène le premier trimestre du CNG divers divers diversement apprécié. Mhm. mu mel ni ñoom équipe bu CNG bu bees bi. Mhm. daf nañ fi ñetti weer. Mhm. Bira Sène ak ñi nga xamante ne bii ñoom la sekkal CNG bi. Euh, record ñëw ñëwalaat ñu ci biir ñetti weer yooyu nan lañ ci jot a def. dëgg la Babacar record dafa euh, def benn euh, interrogation ginnaaw bi Bira Sène defee. defee ñetti weer ci CNG bi ginnaaw bi ñu ko falee 5 novembre 2020 tey di 5 février 2021 record nag dafa jox kàddu ay nitu làmb pour ñu exprimer wu xool lan mooy bilan bilan seen ci ñetti weer yooyu. jox na ci kàddu Ousmane Ndour Ousmane Ndour benn amateur ci li simple moom li mu wax mu ne il faut attendre qu'il y dix boulots pour évaluer mu ne mu essant yi daal Bira Sène defagul dara ban man ko évaluer moom loolu la wax jox na également kàddu du jànjee ko moom mooy président daal mooy amateur yi moom nu wax nee ne on na peut pas évaluer il y a pas d'activité nee na amaguñ mënaguñu évaluer ah, ndax activité amagul waaye nag nee ne Bira jot na wàññi licence yi def na ay jéego yoo xam ne ni c'est salutaire pour la moment jox na également kàddu Kati Diop Kati Diop moom ancien lutteur la waaye moom mooy fondateur euh, écurie bi di Ndakaaru moom li wax mu ne espoir lan am instant bi ndax Bira Sène dafa gu fi loo xam ne nii mën nañ ko évaluer waaye nag am na espoir ci moom ndax def na euh, wàññi na ay licence wàññi na fi ay yoo xam ne ni ci mbër yi la doon jëm euh, wala ak ci acteuru euh, làmb ji. nga mu commencé am na solo kon lu ñu def rek lu dul ñaanal ko li nga xamante ne moo nekk ci kanamam mu yeggale ko ci jàmm ak salaam. amiin incha allah loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi Mbaye Babacar nan ngay tàggatoo. waaw xanaa jaajëfal suñu mbokk internet yépp ñaanal leen jàmm ak salaam wante maa ngi jaajëfal sama sama xarit. maam Cheikh Sourang borom Touba Ndiène Couture tey moo ma génnee fii ma génn maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax rakk sama yàlla sa jàmm yàgg. asalaamaaleykum. jërëjëf Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa di remercier internetu Leewtoo TV di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. suñu caméraman bi Mansour. yow bàyyi ma kii ñu ngi jaajëfal ñëpp ah jaajëfal internetu Leewtoo TV. moom c'est pas yow sa digganteeg Mansour qu'est-ce qu'il maa ngi sant di gërëm. sa digganteeg Mansour qu'est-ce Mansour neexuma. jaajëfal naa internet Leewtoo TV ñëpp maa sant di leen gërëm gis naa commentaire et tout di leen jaajëfal yéen tax nekk fii remercier équipe aussi sama équipe technique bi Mansour bëgg naa la moom moo maane sama chauffeur boobu nee naa loo daw lu bëgguma Ousmane Maysa bëgg naa la bu baax Assane Waalo Assane Waalo maa ngi lay bëgg bu baax kontaanee naa la suy yaay jooju matu Ayda yéen ñëpp maa ngi leen bëgg Yacine Tall nekkoo fi borom ndekk yu neex suy yaay boobu nuyu naa Mistara kontaanee naa la bu baax leen jox ngir daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV